الخلق من فقد أنهم ألا إنني أسمي على خير ملهم ولا أشتكي للخلق من فقد أنهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كن دي كرم سري أو ميغا خمني تم خوال بشبيه ndax li tax ñu di ko gërëm itam suñu doomu waaye itam xam nañ ne ci di Serigne Touba bëggoon ci la nekk kon nag bis bi nga xam ne moom Cheikh Ibrahima Mbacké lañ ko tuddee ñu ngi ñaan bis bi ñëpp gën ko fonk fàttaliku ci ñaari wàllu yu tedd yooyu fàttaliku ci ñaari kilifa yu baax yu tedd yooyu nga xam ne seeni jeexit ak seeni meññeent ndax mooy itam yàggu fi waaye ñoom ñaar yëpp kenn ku ci ne sa jëf mi ngi fi des ba nag sa njabootam di toppatoo loola mu nekk wa jaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibi nekk itam zuriyatan baaduha min baad loolu day wane ne mbiru Sëriñ Tuubaa lépp ci xasida yi dangay gis muy jëfandikoo ko baatu baqaaw loolu mooy waral mbiram du jeex mukk kon nag yéen ñi nga xam ne itam yéene seenu njaboot te ñu ñu tàbbi ci biir ngeen jóg ngeen fàttaliku leen na ngeen xam ne wa inda zikri saalihin tatanazzalu rahimat kon seen jëf ji ngeen di jëf yàlla na bi ci la Serigne Touba ñoo ñaanoon ne euh, zurriyatan tayyibatan ndax nahjan nabiyil Mustafa tak tayiba ndax lii ci bokk mooy fekk li nga xam ne jëf la woon joo xam ne jëf ju baax la nga fàttalaat bu nit ñu ko xam yeesal yoon wañ jaaroon ba ku ko xamutoon xam ko ku ko xamoon itam gën koo xamaat ngir mën cee jariñ mu doon ak gindiku ci ñëpp kon foofu la ñuy jeexale kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ala innani usni ala xayri mulhimi wala astaki lil xalqi min faqdi anhumi ala innani usni ala الخلق من فقد ألهمي